bu ñuy wax indépendance de la justice moo xam nga nekk pouvoir judiciaire pouvoir exécutif wala pouvoir législatif loo yenu doy na la sëkk mbub ak tubéy munoo boole ñaar boo nekkee exécutif yow toppatool exécutif bi nga taxaw askan wi keneen bu na taxaw li ko responsabilité yoo xam ne moom la ko askan wi sas mais aujourd'hui on voit que dans ce dossier là il d'indépendance de la justice on ne peut pas dire que la justice est un grand corps malade. Je suis d'accord avec Pape Moussa. Mais il y a des brebis dans la justice. Et sur certains dossiers particuliers qui impliquent des acteurs politiques qui sont opposés au pouvoir. am na koo xam ne récemment benn xale bu ndaw mineur moo ko accusé avec des preuves. nga yi teg seen bët ne daf ko siif boobu justice moo taxaw acquitté ko ne ko defoo dara. basculer du mais gis bu def loolu man mën nañ ma yóbbu tey amuñu benn preuve contre man ñu téye ma parce que kii nii indi nañu ay ay preuves non seulement ki mu violé mineur la donc pédophilie am na fa mais viol am na fa avec des preuves on l'a acquitté Pape Moussa daf laa acquitté moom mooy defoo dara dama ñibbil sa kër. waaw. oui maintenant maintenant moom mooy wëlbatiku nee ne léegi day topp ki ko yóbbu woon yoon te mu tëj te mu ñu tëjoon ko mais boobu justice boo ko gisee sa réew mais da ngay de sorte que tey jii on a l'habitude de nous man jànguma droit on a l'habitude de nous que le temps de la justice n'est pas le temps des acteurs politiques mais bii yoon dans ces dossiers là kenn mënu ko wax dossier en diffamation en trois en on l'a plié station lay xaar